je vous remercie monsieur le président xam naa ni biig militant passé fi jàqare la ñu fanaane sénégalais yi yëpp ñu ngi doon xaar biir lan may nekk réaction Yewwi Askan Wi devant la situation qui s'est posée hier avec la condamnation di wax ni sax que procure que tribunal gën a corsé condamnation biñ def Ousmane Sonko en première instance moo tax tey yooyu askan wi taxaw bëgg rassurer le Pastef bëgg rassurer le peuple sénégalais que yow askanu démb ak bërki démb moo fi nekkaat tey moo fi nekk suba pour nekk à côté de tous les leaders qui seront attaqués par le président Macky Sall parce que nag tey Ousmane son la démb Khalifa Sall la woon ak keneen mais suba kan la si ñun bépp à la présidence de la République 2024 mu cogoo ci Macky Sall utiliser la justice instrumentaliser la justice pour man laa faagaagal ba doo bokk kon te Yewwi Askan Wi bu taxawee fii nekk à côté du Ousmane Sonko sunu bopp lañ koy defal ndax xañ na bu subaa su Macky sàll pare ci Ousmane Sonko ci Cheikh Dieng la jëm bu pare ci Cheikh Dieng dem ci Déthié wala mu dem ci wala mu dem ci keneen ku ni rek. nekk nga candidat waaye man ci sama gis-gis Macky Sall dafay teste day teste rek bu nooyee nag mu dëggal ko bu amee résistance bi ci war ci population yi mu dellu ginnaaw ndax des na cassation pour que ñu ne Ousmane Sonko dina éligible wala du éligible fii ak cassation kon Macky Sall mi ngi testé Yewwi Askan Wi mais mi ngi testé F24 mi ngi testé le peuple sénégalais ndax na mu bësee woon mu nooy 2019 ba mu éliminé Karim sagar tàkkul bal tàkkul sagar xeeñul mu éliminé texte Khalifa Sall bal tàkkul sagar xeeñul ah évidemment bu continuer nooy day continuer dem bu continuer nooy day force troisième candidature parce que lii test la avant la troisième candi avant la troisième candidature moo tax tey yow askan wi ni nag lii suñu rôle dinañ ko def mooy taxaw ci kanamu askan wi pour askan wi yeewi seen bopp du ma ci delsi ci diagnostic bi leader yi def ni Macky Sall moom échoué na Macky Sall appartient au passé ay li fi des mooy lan mooy ku war a bokk ci élection yi premier jalon bi nga xam ni opposition dina ko poser le 12 vendredi prochain incha allah buñ jullee tisbaar ba pare la à la place de la nation à Colobane yeeyu askan wi dafa ànd ak F24 ñu ci woo askan wépp ñu jàkkaarloo def un dialogue direct entre le peuple sénégalais est le président Macky Sall waaye buñ ci jógee Yewwi Askan Wi lancé na beneen programme pour le 19 incha allah dinañ ci wax dinañ ci continuer waxtaan également ak tous les autres segments de la population parce que du combat wu Sonko du combat wu Askan Wi combat wu askanu Sénégal la. ñu fexe ba Macky sàll du jël réew mi def ko une dictature te sore te te soretuñ ci lépp loo xam ne tey Macky Sall mu ngi koy teg comme ay jéegu nu muy defee troisième candidature la wala nu muy reporter élection yi bëgg na jegewaat ndax moom ci boppam def na ay sondage xam na ni weesul vingt cinq pour cent de l' électorat natt na boppam xam na ni pareegul fii ak juróom-ñeenti weer pour dem élection moo tax ba élection yoo xam ni doo ci bokk na dooni waaye diwit du ci bokk waaye diwit du ci bokk waaye diwit du ci bokk parce que la souveraineté appartient au seul peuple sénégalais sénégalais yi le 25 février 2024 ñoom ñoo war a taxaw ni kan la ñu bëgg mu jiite leen ku dul président Macky Sall bu bokkul ci élection yi askan wi kon tey wër tamit président Macky Sall mu mën a taxaw tànnal tànnal ñu kan moo ko fi wutu kon le combat pour la souveraineté est d'abord un combat pour l'inclusion des élections présidentielles à venir inclusion mooy képp koo xam ni dañ nga cee war a bokk nga bokk ci loolu mooy combat F24 mooy combat Yewwi Askan Wi mooy combat bi nga xam ni dañ ci woo tey tout le peuple Sénégal ñu bëgg a dalal xelu Ousmane Sonko bëgg a dalal xelu askan ni leen vous ne serez jamais seul dans ce combat parce que ce n'est pas votre combat parce que c'est notre combat di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam président Merci, docteur Moussatine. Après Cheikh Tidiane le secrétaire général du PUR. E. Alors, je crois que depuis que la dernière fois, bu ñu ayee marche ba pare ne du ngeen dugg seen siège parce que siège wu jëkk léegi siège suñu siège bi ñëpp la ëpp fi dara. Euh, la ñu am seen benn mbokk journaliste bi ñuy chargé te on était que des leaders et des députés bu fi am blessure sunu xel mi ngi tàmbali dem ci moom parce que je pense que depuis boobu c'est la première fois qu'on vous a rencontré j'espère que mi ngi tane j'espère que jóg na am nañu fi déplacé wu dem seeti ka vraiment sunu xel yëpp dem na ci moom sunu xel aussi dem na ci mel ni Babacar Touré Pape Ndiaye bu Walfadjri dem na sur les députés du PUR dem na sur les centaines de détenus politiques qu'il y a au Sénégal aujourd'hui personne ne peut prétendre qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal